mënul doon nekk candidat man loolu yàgg naa ko wax. Mhm. loolu loolu loolu moom duma ci sori. loo ci wax Macky Sall amul droit ci troisième mandat. moom maa génn ay audio ak ay vidéo mu ne ba ne boo ñu falaatee. 2019 Abdoulaye Wade waxoon ko de. waaw léegi bu boobaa mu xam ni man gëwuma moom moom Macky Sall gëwuma. te doo ci ànd ak moom. parce que moom moo ni Wade boo dégloo ñi la wër ba pousse la ci troisième mandat ëllëg ñoo la fi bàyyi. nga wéet ku la gañe ñu ñu fekk ko loolu am exactement dañ ko doon pousse ci troisième mandat ba mu xalangu léegi boo booyi ko doon pouse yëpp léegi jënd carte APR ñii ministre lañ ñii DG lañ ñii PCA loolu daam lu ci war a jàng man ne ñii ministre lañ ñii DG lañ ñii PCA lañ mhm. man mi nga maa doon xeex soxla ma ministre soxla ma DG soxla ma PCA. yow xëy na fa ma nekkoon laa nekk ba léegi. xëy na say position préserver la dignité. fa laa jëmoon xëy na say position yi ngay jël moo tax duñ la fal loolu. parce que yow bu tayee nga nga wax ko dëgg bu subaa bu fekkee li mu def peut-être euh, arrangé euh, peuple bi nga nga nga ne ko comme tey jii sur la question de la troisième candidature li ñu ci wax ni ñu bëri ñeme ko. tey avant ñoom ñii tey di sóob Mamadou kan du man.